jërë ngeen jëf mbokk Leewtoo TV comme ni ñu koy tàmm di defee di jël suñ caméra di dem seetu acteuru làmb tey nag ki ñu dalal référence la ci làmb bu waxee français nga ne loolu la làmb bu waxee wolof waxi nopp euh, football euh, sport yëpp lay traité borom euh, la pression monte l'adrénaline monte si prenez du sucre prenez du bonbon tey ñu dajal ñuy dalal Malick Thiandoum kenn dootu ko présenté ñu lay bàyyi nga da nga nuyoo ak internet Leewtoo TV jërëjëf euh, Assane Waalo maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax euh, di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp euh, di profito rek ci weer wu sell wi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla weer wu tedd wi lépp luñ ci jàmm yàlla na yàlla suñu borom nangu Sénégal aussi yàlla def fi jàmm def fi naataange defal ñëpp daal lu nga xamante ni moo gën ci ñoom. yàlla suñu borom defal ñu ko ci weer wu tedd wi mën na ko am na ko te it weer wi lu ñu ko ci ñaan mu def ko yàlla ko yàlla suñu borom def. amin yaa rabal alamin ñu war a waxtaane nag ay points yu bëri dinañ waxtaane ci euh, combat bi doxoon Lac de ak euh, Eumeu seen dinañ waxtaane ci saccage yi amoon euh, ci arène national entre autres sujets dañuy démarrer rek foofu le 4 avril Gaston woo amateurs yi arène national Eumeu seen ak Lac de di fa jàkkaarloo léewtoo 40 minutes à la fin arbitre bi yëkkati loxo Lac de Guiers 2 nan nga dundee combat boobu. waaw dañuy commencer d'abord par euh, féliciter Gaston Mbengue. Mm parce que bu dee le pari de l'organisation. Mm-hmm. Euh, défi boobu relevé na ko. ndax keroog ku dugg stade gis ni nga xam ne noonu la euh, doxale xam ne yàgg na ci yëf yi te yàgg na yenu événementiel. Mm-hmm. Euh, mais dans le contenu. Euh, combat yu ndaw yi. am nañ ci satisfaction ba ci yaawu jaal ak yamb sax dañ ci kontaan. parce que bu neex la woon. Mhm. Euh, Diène Kayré ak euh, mhm. Modou Anta. Mhm. également def combat bu extraordinaire. ak yeneen combat yi nga xam ne yëpp ñoo ci amoon. mais bés bi li taxoon nit ñi dëgg-dëgg yàkkamti woon ko mooy Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2. Euh, dañu xas-xasloo. ba ñëpp yaakaar ni bu ñu ñëwee dinañu am combat bu dàq yi ñu njëkkoon a am. ndax seen premier combat neexoon na trop. ba keroog bi ma koy reporté man ak Moustapha Gueye. Mhm. Euh, dañu extasié wu ba Moustapha jóg taxaw ni lii mooy combat. Mhm. ba ma ko naan Moustapha calme calme toogal. Mhm. deuxième combat bi aussi gis ngeen ni mu demee. Euh, ba Eumeu Sène am ndam ci kaw Lac de Guiers numéro 2. donc l'acte trois dafa waroon nekk lu neex. parce que loolu lañ ñu tàmmal. mais malheureusement. Euh, la ñu gis li Gaston ni c'est un non combat ah, man ma ni combat la bu nga xam ni combat bu décevant la euh, histoire du ko retenir wala li ci histoire di retenir mooy ñaari euh, nawle yu taxaw signé contrat ñëw remplir ñu seen contrat ci géew bi parce que quarante minutes de léewtoo mhm. amul benn yoon bu nga xam ne am na accrochage te làmb ku ko xam-xam ne jàppante moo koy jeexal mhm. ëmma jour boobu jekkul ku ko gis xam ne du ëmma dëgg-dëgg bi ñu xamoon moom moo ñëw. Mhm. des fois damay wax ne ëmma seen moo ñëw mais mbër mi ñëw exactement voilà donc ku ko xool xam ne euh, bés boobu du woon bésam. du woon bésu ndam ci moom. donc expérience am permettre na ko mu xam ne. Mhm. combat bi du baax. Mhm. mu am stratégie bu mu taxawal mais Lac de Guiers numéro 2. Euh, moom aussi bi mu ñëwee moom moo war a factoriser combat bi. parce que tey moom moo soxla revanche. moom moo soxla xàll yoon pour dem ci titre roi des arènes. moom moo gën a féete ndaw kon combat bi moom moo ko waroon a yanu bëre ko malheureusement euh, il s'est beaucoup retenu et à la fin lan la ñu dégg que dafa bëre waale loxo bu ndaw donc loolu je pense que erreur mënu ko passé. d'accord yow euh, dund ngaa mbër yi avant combat bi mm-hmm. ñëw est-ce que sentiroon nga ne Lac de Guiers blessé woon na avant le jour ji non sentiruma ko parce que wax dëgg yàlla ba bi ma koy jël entraînement ba bi ñuy def face à face. Mhm. xëy na moment boobu blessé wul woon. Mhm. mais am naa ay sources yu ma war ne moom blessé na avant combat bi. Mhm. gis naa loxoom mu neewi euh, ci ay nataal yu nga xam ne avant combat bi daf ko daf ko dal. xawma lu tax mu nangu ñëw bëre si. mais erreur mënu ko passé man je le lui ai dit ouvertement parce que man aussi lu ma ragal la wax toog fay jooy làkk suma suma xarit la. sama rakk la euh, sama xaritu soxna la. Hmm? lak lan mooy problème à chaque fois du attaquer mbër psychologique la wala lan la. exactement non déjà restons sur la blessure. d'accord hmm. parce que dafa am lu nga xam ne. Hmm. c'est pas professionnel. exactement voilà donc tey bu fekkee ne da nga am gàllankoor. bul xalaat ni dama war a sauver bés bi. naa ñëw bëre si. pour bëre. combat bu toll noonu ak enjeu yi ci làqatu hmm. il fallait être à cent pour cent voire à deux cent pour cent hmm. mais bu fekkee ne da nga am staff dëgg nga professionnel dëgg hmm. bés boobu da ngay wuti certificat médical nga bañ a bëre loolu mooy yoon donc Lac fauté na euh, encadrement am wax naa ko ne xoolal euh, Bombardier dafa jóge fii dagg billet d'avion mm-hmm. dem ba poloñ pour combattre mm-hmm. à quelques heures du combat mu am malaise mm-hmm. biir bi di métti ñu yóbbu ko hôpital rajo ko di ko mënuloo combattre mu daggaat billet d'avion ñëw à plus forte raison yow mi nga xam da nga am damm-damm te ku xam loxo xam ni mooy bëri laxo mooy jàpp mm. moo tax pendant tout le combat Lac de Guiers main gauche la doon dóore mm. benn yoon la dóore main droite dolliwaatu ko te loolu moom moo gën a yokk blessure bi mm. donc ça a une erreur de sa part une erreur de la part de son encadrement loolu ku professionnel du ko def est-ce que jotul également euh, staffu mbër yi wala mbër yi ñoom ñu informé ñu gën a for ñu gën a formel par rapport ak seen seen seen làmb waaw mooy mooy il faut mm-hmm. am na niveau bu nga xam ne bu fa mbër xësee toll sa lépp professionnalisme la war a doon. Mhm. say entraînement sa diététique mooy maanaam li ngay lekk. Mhm. Euh, euh, li nga xam ni également mooy sa récupération sa forme d'entraînement lépp da ko war a teg ci yoon teg ko ci loxo ay professionnel même sa image da ko war a gérer de manière professionnelle tey bu ñu fàtte moom Mohamed Ndao Tyson dem na ba image euh, mooy mbër mi nga xam ni moom la wax birima ma ca benn baat ba boo waxee mhm. ren balaa waxati déwén. wala image am boo soxlaa di nga daj lu métti. wala boo boo ko soxlaa da koy fay. donc mhm. image sax da nga ko war a travailler c'est-à-dire mbër léppam xaalis la bu fekkee ni egg nga ci benn niveau bi loolu nag boo amul encadrement bu professionnel yow sa bopp amuloo benn niveau professionnel bi dafay sooxe dafay ga indi gàllankoor ci sa carrière malheureusement la de Guiers ñi ko encadré juum nañu moom ci boppam juum na loolu moo tax tey nit ñi di ko xas mhm. te pourtant mois je trouve que Lac c'est un bon waaw ah, bu ñu fàtte parce que aussi nit ñi par par parfois il faut ñuy jéem a xool tuuti ci rétroviseur bi Lac de bi bokkoon ci CLAF 2006. explosivité bi mu amoon ak ni mu daane ay naatangoom yi mu bokkoon yi mu bokkaloon. génération génération boobu yëpp da leen a tër. Mhm. ba ci Tafatin ñoom Zos ñoom Issa Pouye et cetera donc ñoom ñëpp da leen a gagné. Mhm. de manière extraordinaire. Mhm. des fois mu song daan des fois nga song ko mu daan. bi mu demee ba egg benn niveau bi nag. la ragal defet Lac ab peur de perdre et la peur de perdre parfois da koy paralyser ba nëbb ay qualité te pourtant c'est un lutteur qui a d'énormes qualités mais je pense que lii dina ci jàngat bu ci jógee li ñuy xaar ci moom mu def ko il a le talent il mën na ko bu ko kenn tënk na bëre na def li nga xam ne moom la nit ñi di xaar ci moom mais quarante minutes ba nit ñi génn làmb ji. jépp leen di dem loolu mbërum làmb war na ko rus. d'accord Eumeu Sène lan moo ci part de responsabilité ci combat boobu. waaw am na si am na ci am na ci part de responsabilité parce que moom aussi boo déggee même à la fin du combat mi ngi wax ni waru leen ma woon téye. da ma waroon bàyyi ma bëre. Mm. donc ça veut que euh, dafa bëree consigne. Euh, ñàkk topp consigne am na lu ko ci war a fekk. parce que euh, contre Modou dafa mm-hmm. bëre contre consigne. Mm-hmm. lañ ko wax defu ko la ko ca fekk fekk ko ci. donc jël jël bi mu daanu perte titre roi des arènes ak ni mu daanu ñu dóor ko mu ñu dóor ko mu daanu kaw. Mm-hmm. loolu dafa des ci boppam. lañ ko waxoon defu ko dafa des ci boppam kon bii yoon bu ñëwee. buñ ko nee téyel sa bopp il faut mu téye boppam. et en plus c'était Euh, moom moo nekkoon tey ku nga xam ne Lac de Guiers moo soxla woon ndam ci moom ndax moom moo amoon ndam ci moom mhm. est-ce que moom moo war a ñëw diriger combat bi non stratégiquement warul woon ñëw diriger combat bi gis na ni jekkul aussi mbërum làmb bu jekkul des fois day téye boppam des fois mu jéem a xool nu muy def ba génn ci ba yàq combat bi mais malheureusement Lac de Guiers n'a pas pu euh, exploiter failles yooyu nga xam ne gis nañ ko ci Eumeu seen jour boobu d'accord ñu reste ci ba léegi en tant que homme de média nga gis ci terrain bi arène bi nan nga jàngatee loolu. waaw loolu euh, damay masawu d'abord site yi parce que euh, ku xam site. Mhm. xam ne événement daf koy dund avant. Mhm. daf koy dund pendant daf koy dund après. Mhm. donc lépp lu jëm ci wàllu promotion journée bu mu mënti doon ak promoteur bu mu mënti doon. promoteur yi euh, nu mu tudd ci site dañ ciy def liggéey bu mucc ayib mais il faut aussi qu'on reconnaisse. que tey site yi bari nañu. loolu waaw loolu aussi il faut ñu reconnaître ko. Mm-hmm. parce que benn Malick bu jóg créer sa site. ñëw événement ñëw nga ñëw pëccëxoo bi mel ni tulleeg màlli kenn du mën a jël image bu normal amateurs yi du ñu mën a seetaan il faut que aussi ñu xool naka la ñuy réorganiser. Mm-hmm. Euh, euh, le le paysage. Mm-hmm. Euh, des sites ñu xool naka lañ koy normaliser parce que aussi dem na ba. ëpp loxo ëpp na loxo boo ñëwee open press sax doo mën liggéey parce que ku nekk yaa ngi buuxante ku ne da nga bëgg loo yóbbu donc loolu aussi handicap la ci côté sit yi beneen bi ci des il y un système bu nga xam ne mettre nañ ko en en place muy le pay-per-view bu bu fekkee ni euh, promoteur bi daf ko appliqué pour mu bàyyi site yi dugg day jafe day jafe oui c'est mu am cahier de charge bu nga xam ne da koy digaale ak site yi ni leen pendant le combat bu benn site def direct mais c'est possible c'est possible mhm. site bi signé ko nga liggéey ak ñoom ñoom ñu def captation d'image bu combat bi jeexee ñu rediffuser d'accord parce que pendant le direct euh, euh promoteur bi dafay liggéey ak l'extérieur mhm. bu fekkee ni tey Leewtoo dafay wane combat bi gratuitement moom site mu jël beneen site di fa euh, jàllale combat bi di fayee fayeeku kon du am xaalis te business business la business amul sentiment loolu moo tax Gaston dugalu ci sentiment parce que business lay def xaalis lay wut il a investi des millions bëgg na retour d' investissement te ci pay-per-view bi am na retour d' investissement bu mu ci war a am bu bàyyee Siteu retransmettre ko en direct manque à gagner boobu fan la koy jëlee. loolu aussi il faut nit ñi comprendre ko ci côté boobu ni businessman la te businessman dafay carré. Mhm. donc voilà loolu moom moo tax mais je pense que à l' avenir mën na xool yenn sites yi mu liggéey ak ñoom. Mhm. ak ay conditions conditions yi mooy vous fet faites pas de direct pendant l' événement. mais après l' événement bu leen neexee exploité ko nu mu leen neex parce que damay liggéey ci ci ci ci direct. dëgg la loolu xel na ko Gaston ñu des ci moom ba léegi mu génnoon ci làmb ji toog ay année ñëwaat retour bi mu signé Balla Gaye grand combat yëpp pratiquement mu signé ko hmm. euh, retour bu fracassant wala. waaw retour retour retour bu bu bu extraordinaire parce que Gaston moom hmm. euh, déjà daaw defoon na retour bu nga xam ne. Euh, nit ñi euh, xalaatuñu ko woon. Mm-hmm. ti vois mu def euh, saison bu bu nice mais avant loolu doon defoon na fi benn saison de feu bu nga xam ne ponkal yépp la bëre loo woon ñoom Tyson ñoom Yékini ñoom Bombardier et cetera ba ñu tuddee woon ko saison de feu jël les les les jeunes loups aux dents acérées ñoom ñëpp mu tëgg leen. Mm-hmm. saison de feu boobu Gaston def ci feu et flamme. Mm-hmm. donc pour def saison bu extraordinaire loolu du secret pour Gaston le problème mooy na am moyen. su amee moyen am jàppale lu ko neex mun na ko def ci làmb mm. euh, heureusement que saison bi demoon nañu ñun ba amoon njàqare tuuti parce que Covid bi ñëw na plombé làmb ji plombé àdduna sax laay wax mm-hmm. làmb ji sentir ko bu baax a baax wax dëgg yàlla demoon nañu bay wax xalaat ndax grand combat yi dina am wala bu amee fan lañ koy tëggee ak kañ lañ koy tëgg date yi même am ko daf doon poser problème Gaston ñëw avec des affiches alléchantes tëgg ko keroog Lac de Guerre ak euh, mm-hmm. Eumeu Sène moo ci jiitu mm-hmm. euh, Bombardier ak Balla Gaye euh, le 26 juin lu koy tëgg avant loolu am na Forza ak euh, Pakala euh, taxawal na Issa Sa Thiès Moussa taxawal na Issa Pouye ak Alioune Seye numéro de mhm. jox na ki nga xam ne moo di Balla Gaye ñaari avance d' accord lan taxaw ci loolu jox na Balla ñetti avance ñett sax voilà xaw na ñaari mbëri mhm. ñetteel bi xam nga ko non ñetteel bi xamaguma ko parce que xam naa ne mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy togg. Mm. mi ngi koy togg. diggante Eumeu Sène wala Gris Bordeaux. mën na nekk Eumeu Sène mën na nekk Gris Bordeaux xam nga Gaston. Mm. il est imprévisible. Mm-hmm. gis nga bi muy taxawal euh, Balla Gaye ak Bombardier. Mm-hmm. boobu Balla Euh, Eumeu Sène la doon lañ doon wax. Mhm. mu am ay blocage mhm. bu nopp bala Gaye Gris Bordeaux. Gris Bordeaux moom la waroon taxawal. mu am ay complication diggante ma Gris Bordeaux. Mhm. mu changé fusil d'épaule dem jëli Bombardier. dem jëm ni ma Malick Kaye am na lu ma taxawal ma ñëw muy Bombardier. bii passé aussi gis ngeen ñu jékki-jékki mu jox ko mu mu mu wooñu lu xew mu ne jël naa avance jox naa ko Boy Niang numéro 2 donc Gaston et imprévisible tey jii troisième avance bi c'est sûr que mi ngi jéem a xool kan lay doon mën na nekk euh, Eumeu Sène bu fekkee ni ñoom ñaar juboo nañ ci kàddu. Euh, parce que problème mu cachet moom moo leen. moom moo leen divisé. mën na nekk aussi euh, Gris Bordeaux parce que ñoom ñaar fi mu nekk nii euh, ils ont mis de l'eau dans leur vin. xaw xaw xam nañ xaw nañu mel ni mburu ak soow en tout cas donc c'est sûr que mi ngi manœuvrer te à tout moment mën na mën na am troisième combat boobu. d'accord ñu cité ko sànq diggante Balla gay ak Boy Niang 2 xam naa ne Boy Niang am na benn contrat bu mu am moom ak Tapha Tine Bombardier également am na kii Balla Gaye 2. ñaari contrat nga dajale ko est-ce que du gêner mbër bi. waaw parce que la logique. Mhm. moo doon ne tey jii Balla Gaye dafa am client bu nga xam ne. Mhm. foog mu xool fu mu ko yekkale. parce que Bombardier ku ko am am nga client. boo ko amee boo boo ko waxee boo ko waxul. Mhm. yow boo tëddee nelaw sax say mbokk du ñu tëdd nelaw. parce que Bombardier client la. ponkal mu toll ni Bombardier nga am ko sous contrat. defe naa ni bàyyi ba wàcc ko ma la mu wàcc la. nga soog a jëli leneen moom moo gën a wóor bon. Euh, Euh, booy Niang numéro 2. am Tafatin takk ci ponkal mu toll ni Tafatin. ak jamono ji ni ma ko gisee. la ilaha illallah nga jël ko. yenneekoo goo ko xamoo foo ko yenneekoo. nga dem jëlaat ponkal mu toll ni euh, Balla Gaye numéro loolu aussi du logique. donc la logique moo doon ñoom ñaar ñëpp. ñu xaar ba génn si contrat. xam lan mooy xew soog a bëri. parce que tey imaginons parce que làmb euh, ñett fi am. daan hmm. daanu. wala match nul ñett yooyu moo fi am bon ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk mën nga am victoire waaye ku ci nekk mën nga am défaite wala boo kenn ki am victoire kenn ki am défaite alors la logique voudrait que tey mbër bi nga xam ni dafa daal uti lu gën a kawe mais boo daanee ka nga war a bëreel ñu daan ko nga dem jël ko daan loolu du logique gu làmb. mais nag Balla Gaye nee na moom instant yii xoolatul titre xoolatul. voilà maintenant reconversion lay xool. moo tax ma ne la fi mu nekk nii dañu dugg ci beneen cadre. nga xam ne nekkatul cadre affiche la ñuy xool wala affiche bu nga xam ne c' est dicté par de l' arène wala yu mel noonu. affiche yi nga xam ne moom la Balla Gaye war a bëre. dañu ciy dugal la concept bi Tyson waxoon ca jamono muy sport business. moom dafa comprendre. que ni tey carrière li mu ci def du ko ci mm-hmm. defaat. diir bi mu def ci làmb mm-hmm. du ko defaat. mu am encadrement parce que foofu aussi la ñuy waxee euh, mbër dafa war a am. encadrement am ay loxo yu wóor yu mu nekk ki ko yor. Mm-hmm. il a le sens élevé du business. kooku mooy. Abdoul Aziz Ndiaye. Aziz il est très futé macha allah maa ngi koy nuyu xam na business parce que ci la nekk. mu jàppale ko pour mu gérer fin carrière alors tey jii nga am ñetti combat combat bu nekk nga am ca supposons rek au bas mot soixante quinze million wala cent millions waaye yow nga jël ñetti avance yu baax yooyu euh, kër kër kër guy centaine de millions di dugg ñu koy wàññi fu mu am ci jamono ji <laughs> ah bu dee nit nga mm-hmm. boo ko delloo say mbokk mere la donc te Balla il a des projets projet yi mu am c'est des projet yu nga xam ne après lamb mhm. la la reconversion se prépare pendant nga nekk ci ci couloir c'est parce que am na moment bu nga xam ne sa njëg day wàññeeku day wàññeeku mhm. balaa ngay egg ci njëg li di wàññeeku dangay ngay profité ci moment bi nga nekk ci sa diggu oral nga récolter li ngay récolter mhm. boo ci jógee am foo ko investir donc le combat Balla Gaye Euh, ak ki nga xam ne moo di euh, booy Niang numéro 2. Mm-hmm. nekkul logique sportive mais mm-hmm. logique financière. moom moo ko guidé. te beneen combat bi nga xam ne moom la war a jël tamit ci même logique boobu lay nekk parce que Balla fi mu nekk nii day préparer arrière am. d' accord Balla day préparer arrière am cela veut dire que mbëri yi fi ñu toll tey euh, dootul gis li fi ancien gloire yi doon def saa dire nga dem ba bàyyi bëre nekk ci ay problème mu problème mu financier. ak problème mu financier mhm. problème mu santé mhm. lu nekk ngay jànkoonteel boo jeexalee sa carrière mhm. euh, te tey jii Balla dafa am référence muy papaam Double Less euh, lu nekk def na ko ci làmb mais la mu waroon a récolter ci làmb récolté wu ko wala la mu ca récolté na mu ko waroon investir investiru ko li dal Double moo dal Mbaye Guèye moo dal euh, ñeneen ñeneen ak ñeneen ñoom Mor Fadam et cetera. Mm-hmm. donc toute cette génération la ñoom tombé nañu ci ay millions te millions jamono jooju amoon na valeur. mais ku xamoon jamono ju mentalité bi suñu paa yi doon doon doon doxee ak mm-hmm. mentalité léegi bokkul. waaw parce que boobu gloire moo la gënal sax xaalis. Mm-hmm. loo am tamit da koy bokk ak say mbokk. séddale ko dem wuti waat mais léegi loolu moo fi jeex moo fi jeex tey. Euh, Balla am na référence bu mag muy papaam di Double Less mhm. mhm. donc tey jii day wax ne sam papa li mu waroon a am ci làmb yépp amu ko ci kon man mii doomam assurer relève bi li ko dal duma ma dal donc je pense que ci logique boobu lay demee ba tey jii mu commencé xalaat ne carrière mi ngi waaj a jeex rakkam Sa Thiès mi ngi ci ay tànkam balaa may egg foofu naa liggéey lu may liggéey nga xam ne bu ëllëg ak si biir euh, dinaa am lu ma suturloo buñ ma nee loo am ci làmb ma ne lii te tey jii Balla Gaye mu néew mu bari am na lu nga xam ne mën nga ci ni duut baaraam ni lii moo ko moom mm-hmm. Modou Lo mu néew mu bëri am na lu mu investir loo mën ni dut baaraam ni lii moo ko moom mhm. seen mag Yaxya Jóob Yékini mi nga xam ne raccroché na tey jii mhm. mi ngi ci business bu nga xam ne bu ñu la ko woloon nga xam ni am na préparer na après carrière am ndaw Ndao Tyson tey jii directeur général la mi ngi ci ay liggéeyam yu nga xam ne làmb moo ko may fond mais mi ngi reconversion bi réussir na ko. Mm-hmm. donc am nañu ay exemple ci ginnaaw. am nañu ay exemple ci génération bi soog a raccroché. Mm-hmm. donc yu nga xam ne mën nañ ci xool pour préparer seen ëllëg. la carrière de sportif dafa gàtt. tey jii mun nga xëy maari day taal yi génn fii. am benn blessure bu nga xam ne sa carrière fa lay jógee fay. Mhm. balaa ngay egg ci loolu nga liggéey li ngay liggéey. d' accord Gaston également euh, jël euh, euh, jox ñaar ñooñu ay contrat alors que xam na ne ñoom ñaar ñoom ñu ngi ci contrat surtout Tapha Tine mi nga xam ne nii moom engagé wu ko est ce que loolu c' élégant. waaw bu fekkee ni déggoo na ci ak Pape Thialis. Mhm. amul problème. bu dee déggoo woon si ne. buñ ci déggoowul mhm. loolu du yoon. parce que déggoo bi moom mooy yoon. d'après li Gaston wax même bi muy jox avance booy Niang dafa wax stafam na ngeen waxtaan ak Pape Thialis. su ngeen waxtaanee ak moom mu jox leen feu man dinaa leen defal un contrat bu jëm déwén. c'est normal contrat bu jëm déwén amul problème. mais nekk ci contrat di signer contrat c'est pas élégant. c'est pas élégant mais ak condition ko mu am lu ñu tuddee gentleman agreement. mooy nga waxtaan ak ki yor mbër bi ci contrat. ba juboo ak moom bu juboo amee maintenant li ci des vous pouvez dérouler.